ci yonent bi ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyu bu baax waa Equivox di am mbégte ci wuy si la ci invitation bi alors actualité gis nañ la euh, laata tànn bi ci Yewwi Askan Wi fu ne yuux nga fa ni euh, soxam la war a doon mujj ko doon lu la bett la non bettuma mais li waral d'abord euh, ñu nekk ñu gisoon ñu ci ñuy wax hmm. du ñu woon pour bokk ak moom du ñu woon pour dem ci listam du ñu woon pour and ak moom dafa fekkoon caucus des femmes leaders dafa am programme bu mu lancé woon bu tuddu programme WPP ñu bëgg am cette année si dix pour cent des femmes fekk am nañu deux pour cent ci biir deux pour cent yooyu dañ ci amoon sens au niveau de la capital mu amoon madame Soham El Wardini mu remplacé woon Khalifa Ababacar Sall ñu voteel ko mu continuer hmm. ñu ne deux pour cent yi acquis la donc nañu jéema a yéeg 10 pour cent si la ñu am programme bu ñu demoon di former les femmes di leen accompagner parce que en tant que société civile gis nañu ne gestion yi ñu gis yëpp. Hmm. ci institution municipale yi yi jigéen ñi yore amul benn problème. amul problème malversation bonne gouvernance moo fa am et en plus au niveau de la capitale aussi hmm. la gestion de Soham l'institution amul problème ak l'institution de la République gis hmm. nañu jàmm ñëwaat na ci ville bi gis nañu aussi kenn utiliser wul l'appareil de la ville di ko xeexee politique au hmm. profit des Dakarois ñu gis stabilité boobu ak gestion boobu gis aussi bonne gouvernance boobu moo taxoon ñu ne boobu acquis la nañ ko téye pour que mu mën a joxaale fit les femmes parce que profil bi aussi daf ci bokk c'est pas donné femme pour femme Mm. parce que femmes yu mel ni Khoudia Mbaye Gandon ancien ministre gis nañu ci ay femmes yoo xam ne ni dirigé nañu comme ki nekkaloon ay dëmbooj fële loolu moo ñu indi woon mm. ñu doon ñu doon def ko bi koy def nag ñoom dem nañ tuuru leader comme parité am na nañu fexe ba bi yoon femmes am ci cër donc euh, bi ñu yegsee nag leader yëpp dañ leen wax ni dañuy renforcer waat li ñu defoon ci femmes yi mais bi xew-xew boo amee ñëpp jëloon nañu seen kàddu joxe woon mm. nañ kàddu muy Khalifa muy président Macky Sall ak ñëpp donc mais kaaw Soham El Wardini boobu c'était exceptionnel parce que dañu gisoon ni bi ñu commencé def tentative de coup d'état bi ñun foofu lañ jàpp coup d'état coup waaw ah parce que demaguñu woon ñu ngi commencé ci ay affaire forclusion ay list ay candidature hmm. ci lu teguwul fenn ci ay naxa sa xantang loolu si ay naxaate la ah donc si parce que bu dee ay bu ñu joxee délai pour ñu war a déposer loolu loolu yéen la ñuy wax candidature à la candidature loolu loolu yéen la ñuy wax ndax coalition bu teg charte teg ay charte am ne ne bi Dakar ku ko yoroon lépp fépp ku ko yoroon moo koy yoraat hmm. donc ville de Dakar c'était consacré pour Khalifa Sall taxaw hmm. donc xalifa moom mooy joxe candidature bi donc moom mi nga xam ne moo nekk conférence des présidents moom ci njabootam dafay demander kenn ku ci nekk hmm. ku ku bëgg ñaar ñi soxla moom moom la ñuy jox seen candidature donc ñu taxaw bu ñu taxawee fee nañu ay CDI commission d'investiture départementale ak yooyu loolu c'était du bluff donc foofu tentative la woon ak manipulation pour mën a jaxase xel yi mais loolu ça fekk dañoo teg commission ba pour bluff. la woon parce que. commission bi ñuy bluff te xalifa bokk ci. non xalifa Sall toogul ci xam problème waaw léegi c'est parce que cela veut dire loolu réglé nañ ko dañ ne Ousmane Sonko mooy validé ñi nga xam ne fu moo fa war a toog. Hmm. fi nga xam ne ni Déthié ñoo ñoo ñoo fay toog seen chef de parti ñoo koy valider léegi seen chef de parti yooyu ñoom ñooy valider le dernier mot leur revient ba pare d'autant que taxawu Sénégal du parti politique hmm. coalition des partis et des mouvements la donc foo xam ne ni dafa amul parti politique primaire amu fa élection amu fa leneen amu fa mais dañ ko mës a nangul loolu Khalifa Ababacar Sall mooy leader moo ci leader loolu xam nga moo duggee kër jàmbur yu mel noonu moo fa hmm. duggee dafay mel ni kër jàmbur laa nekk xam nga mbirum xalifa Ababacar Sall sax soo gisee du yoon ma hmm. ciy wax mais boo gisee ma ciy wax hmm. mooy xalifa après bi ñu ko commencé sonal nekkatul xalifa taxaw Sénégal parce que xalifa de 2014 bi ñu ko bëggee nangu meereem si la askan wi yëpp jóg pouvoir société civile euh, yéen journaliste kilifa yëpp jóg taxaw jàppale ko ba mu jotaat mairie bi mu def taxaw Ndakaaru taxaw ndakaaru bi askan wi la ne man de yéen laay ñëw tàllal loxo hmm. ci kaw loolu la ñëpp ñëwee après bi ñu bëggee foqati maire bi ci loxoom tëj ko kaso si lu jaarul yoon pour mu génn ci kaso ñun ñëpp looloo ñu si dugal hmm. du rek njabootam bu desoon ci parti socialiste gam bokkoon bokkoon nañ ci ñu ko suuxal su desoon ci ñii taxaw ci wetam neuf maire quatorze la ñu woon ñëpp daw nañu hmm. am ñu gor yu ñeneen ñu fa des donc Khalifa Sall dépendre tul woon ci cadre politique bu moomal boppam yoratul woon parti taxaw Sénégal. kon da nga jàpp dafa juum le fait que euh, xam sa position. parce que yàgg nga ko wax waxoon nga ko ñu nangu. yaa ngi ko wax coup d'état du ñu nangu loo njort ñu dem. ci biir ñu gis Barthélemy Diaz nga amaat waaw xam nga dama sama gis-gis. ak kuréel gi ma bokk. que gis-gis bi du pour Khalifa rek de. dama ne tous les maires bi ñu ne suffrage direct am na dama ne tous les maires hmm. yi dem nekkoon gestion pendant sept ans kuréel yi ñu àndaloon dañ leen war a reconduiraat ñu dem suffrage direct askan wi sanctionné leen ku dul maire wala parti wala coalition bu bëgg doon maire nga indi offre politique et programmatique programmatique boo xam ne da ngay ñëw proposer waat ko parce que bii yoon injustice bi daan am ci suffrage indirect dindi nañu ko léegi mën nañu bu njëkk da nga daan fal ñu dugalaat maire sortant bi ci biir liste bu ñu demee indirect indiwaat ko te fekk gestion baaxul. tromper population. waaw mais boo waxee loolu mooy ni de facto. waaw léegi nag kon war a dem. non moo tax may taxaw foofu. mais xam nga tax man dama waxoon ne à tous les maires. Hmm. yi nga xam ne dañu demoon. nañu leen bàyyi parce que boobu c'était pour parce que ku mel ni des maires comme ku mel ni Bara Gaye bokkuma ak moom mais la mu def yëmbal noor bu ñu bàyyiwaatee maires yi dem askan wi dinañ mën a juger des maires comme Serigne Gueye jo Sandiara suñu bàyyiwul noonu coup d'état politique mën na ko fa jëlee te fekk amal na njëriñ askan wi de maire comme par exemple Barthélémy Dias Sicap Mermoz liggéey na fa liggéey bu rafet pour man bu ñëwaatee dafa war a ñëwaat noonu la amee ci Madiop bi nga xam ne mu ngi def ay réalisation foofu laa waxee foofu nga waxee ni tamit noonu la Soham waaw ma ne Soham Wardini nag moo doon maire de la ville et de la capitale mm. bu présenté waatee bilan am mu wane bilan am si bonne gouvernance taala si la niñ ko def à moom it aussi bi mu ñëwee gis nga jéego bonne gouvernance yi mu teg ak gestion participative am pour que ñooñu mën a ñëwaat présenté waat. mais nag bul fàtte ne tamit soo am Edouard Denis mandaam matut. daanaka dafa dafa dafa dabe. loolu aussi mu ngi sax ci seen gëstu journaliste <laughs> damay dute ci loolu parce que soo am Edouard Denis mm. dafa bennoo sigil Sénégal moo doon dem élection 2009 mm. après les assises nationales mm. Pape Diop amoon bilan liggéey Dakar mais ñu def fa Karim Wade Karim Wade bañ fa def ñun Benno Siggil Sénégal ak assise yooyu moment boobu dañu wax ni pour jël mairie bi jox ko Pape Diop yaa ngi koy waajalal Karim Wade ci suffrage indirect bi te dañu bëgg a jaare à la ville pour jox pa Karim Wade dëkk bi loolu lañ campagne ba xalifa jàll par surprise bi Khalifa jàllee par surprise soo am war ni AFP la nekkoon bi ñuy dispatching adjoint maire dañ ko joxe selon quota ñi coti ñi participer soo am nekkee adjoint maire bi ñuy dem 2014 taxawu Dakar Khalifa salla jël ko ne ko Mermoz hmm. ngay dem doon tête de liste baataral ma foofu campagne boobu Barthélemy Diaz nekkul woon tête de liste parce que Barthélemy Diaz après la ñëw ci taxawu Sénégal bi donc bi soo jallee jàllee Khalifa Sall ne ko da ngay ñëw nekk sama premier adjoint parce que gis naa ni taxawaay bi ñu amoon ci premier mandat bi ñu sénégalais yi jox hmm. bi mu gañee légalement mooy premier adjoint ah. mu géré intérim gérer intérim délai bi jeex bi ñu tëjee xalifa arbitrairement mu dem élection bi muy dem élection ci cent maires yi xalifa nekkatul ci cent mais xalifa nee na comme kii moo gérer intérim bi continuité bi nga xam ne état bi bëgg na ko nangu état bi jël ay moyens joxe doole envoyé ay nit ut ay candidat ci biir li ma li nga wax ak man moo ko utale mooy li nga bëgg ne ma soo am dafa dabe ah dabewul non luy dabe ku nekk ci gestion de 2009 non je te parle ma waxuma la Dabe mooy lan. dama lay laaj. elle n'a pas été maire. dé parce que tout simplement. ki ko def nekk mu fa jëlee. de ki ko def loolu laa lay wax. su dee ni loolu moo am de fait man fee laa lay wax. non non ay ni waaw dafa nekkoon ci équipe bi. dafa ànd ak ñoom depuis booba gañeendoo nangam déedéet. xalifa la. xalifa la laa la wax. non que moom lañ tànn tànnuñu soxaam. déedéet. tànnuñu soxaam mu ngi feeñ ginnaaw ba ñu ginnaaw xalifa bi ñu ko nëbbee jant bi. tànnuñu xalifa Sall faut qu'on soit clair. déedéet tànnuñu xalifa Sall dañu tànn liste <laughs> taxaw Dakar Benno Siggil Sénégal dañu tànn liste li ma la doon wax ni ni détournement d'objectif da daan am bu njëkk ñoom reconnaître nañ ko ba indi suffrage direct hmm. de Benno Siggil Sénégal bi ñu dem élection waxuñu xalifa Sall la ñuy fal dañu def seen liste composé ko parti yëpp joxe bi ñu paree ba tànn niñ ko séddoowee mooy PSC jël fii AFP jël fii lee jël fii loolu yëpp soo am a nga fa ca la ñuy séddale ci la soo nekk adjoint maire de la fi on le sait bokk ci bureau bi ñu paree taxaw Dakar da génn ñëw rejoindre Benno Bokk Yaakaar. ma li ma wax mooy mandat bi ñu renouveler Khalifa Ababacar Sall bu ko doon doxal ba dem benn moment ndog ndog dal ko. waaw mais parce que parce que loi moo ko ñu nëbbu ko jant bi waaw loolu ñu nëbbu ko jant bi après nag soo hmm. ma woon remplacer Khalifa yow mënoo ko woon keneen mënu ko woon c'est parce que premier adjoint bi yoroon intérimam nga xam ne Khalifa Sall ku ko xam-xam ne da daan bouger lu bari comme ni Cheikh Gueye yoree woon intérimam donc moom soit moo ne woon foofu bi mu paree état bi mooy ñëw ne damay organiser élection parce que maire amatu fi comme ni ñu ko defee ci maire yi décédé ak maire yi nga xam dañu vacance wala maire yi nga xam dañ leen fa jëlee moo ko tënk. loi bi ñëw nag organiser élection boobu dafay demander conseil yëpp am liberté demande seen seen seen seen loxo comme tout le monde mu ngi mel ne ci texte bu bees bi. su dee ni maire bi gañee dafa gagné commune am gagné leneen dafay obligé tànn benn après ñëwaat ci biir conseil ce qui est injuste nag laa la wax ne la kooku dafa ñëw ñu fal ko légalement mu am légitimité c'est parce que dafa nekkoon ci biir coalition gagnante bi nga xam ne ñoo présenté woon Sénégalais yi 2014 hmm. donc cër la rek man ci man rafetal gi ci amoon noonu sax pour man raf ah. jaru ko ci woon d'accord pour man jaru parce que pour hmm. man sax pour yàq politique Sénégal bu bon hmm. mooy waral ñuy tàggu leader yi comme Idriss mooy ñëw Thiès tànn ku ko neex Macky Sall mooy toog bi toog euh, tànn ku ko neex ñu dem palais la ñuy régler problème collectivité locale pour man le pouvoir dafa war a delluwaat ci askan wi. Hmm. askan wi ñu comme li ma daan dégg taala di ko wax mooy fal askan wi askan wi di fale. mais kew li nga wax nii yëpp bu fekkee loolu am na mais ñoom nangu nañ kon jeu bi parce que soo am demoon na ci yóbbu candidature comme ni ko Barth yóbbee. et tout ñu arbitré. mais moom moo ne. mu génn xam nga moom moo ne. Hmm. dañu ma dañu téye xalifa taxaw Dakar. Hmm. taxaw Sénégal ñëw ne day kuréel yi jàppale xalifa yi mu ne membre la ci te dafay jàppale xalifa ba jusqu'au bout. moom moo wax ne xalifa Sall la mooy mooy leader kon dama kenn mënu ko ko nag moom la wax ni moom la jox confiance moom la wax ni ni moom lay àndal donc ànd googu muy ànd moom nag bu ne ki may àndal jox ko sama kilifteef nee nañu ci coalition bi laay dem moom soo am femme yi dañ ne ko def nañ la candidature hmm. kaay ñu ut fu ñu lay jaare mu ne déedéet bàyyi leen ma taxaw parce que foofu aussi dañuy dem te bu ñuy dem ak yi ñu wax mooy maire yëpp ay reconduire seen man ñun bu ñu ñëwoon ñu dindi ñëpp hmm. maire yi sortant yëpp mais maire yi sortant yëpp lañ confirmé Barthélémy Dias dafay nekk maire en même temps commune am nekkaat tête de liste. léegi on élimine on humilie on écrase benn femme boo xam ne ni yow mi nga xam ne sax charte yi nga xam ne moom ngeen tegante ci seen coalition mooy que même charte yi nee kenn ku ne fi nga yoroon yaa koy téyewaat. Hmm. donc bu ñëwee moom ñu conserver ña fa nekk ñëpp. conserver Cheikh Gueye bu LD conserver Babacar Mbengue ba pare ne soo atia us. Hmm. ci koo xam ni dafa demoon gestion. am lu mu war a présenter askan wi. Hmm. pendant les ba fii ba deux ba fii ñu nekk nii ci mandat prolongé. léegi noonu noo koy tuddee. waaw ni mu ko trouvé mooy ni ni ko xalifa defee. noo ko tuddee loolu. man dama ko tuddee humiliation dama ko tuddee aussi sacrifié sacrifié bu ñu sacrifié jigéen dama ko gis utiliser jigéen ba pare sànni ko dama ñàkk respecté jigéen man noonu laa ko gisee. parce que bu doon góor la parce que dama dégg ñu ne jigéen na na dem wóorul jigéen boo ko fa tegee na ba pare diim nit mu war a dem waxoo sax ñëw waxtaan daal di ñëw ah stratégie politique parce que ñëpp xam nañ ni du pour ville moo leen tax a dem parce que bilan bi soo am def. Hmm. ñoo ko bokk. conseil municipal bi fa nekk. ña fa xalifa euh, démarré woon kii donc bu dee ni ni kooku pour liggéey la ak ay résultat donc sur la base des résultats lañ waroon. ñëw mais lan nga jàpp moo xajamal. Euh, non tànn bi ba xalifa xëy na tànnul bàyyiwul soo am mu dem. Euh, défendre bi non xam nga xalifa man li ma mën a sukkandiku mooy le cas bi non xam nga xalifa li ma mën a sukkandiku parce que Barthélemy je n'ai rien à le reprocher parce que dafa dem xeex ji li mu am muy un homme muy un homme politique bu dem xeex ji ci li mu am mais leadership bam bu leader bi doon tànn moom foofu la wax ji nekk li ma nanguwul rafetluwul ci Barth mooy bi nga bëggee say njaboot waruñu tiim ndaw si di ko saaga di ko xas parce que yaay la dindil li ñu la joxoon moo moo fa Barth dafa yor li ñu yor Barth li mu yoroon da ko moom du soo am ko moomoon soo am moo fa newoon maire 2014 moom la ñu faloon ci tête de liste moom quatrième la woon ci liste bi moom 2009 aussi Barth la mu yor moomu ko woon du Benno Siggil Sénégal ko gagné tànnoor tànn ko foof femme bi moo moo gagné woon sax premier tour donc ñu naan ko dindil li nga moomoon mel ni comme si ñoom ñoo ko jo te ñi ko wax en général mooy clientèle politique bi ngay recruter. personnel bi ngay teg foofu du askan bi nga xam ni moom la doon servir. bu la déggee mooy manque d'élégance ngay dénoncer. waaw mooy mooy ci ñëpp ba ci Macky Sall. Ah Idrissa parce que ñoom leader du Sénégal yi chef de parti ci seen wàllu bopp ñoom ñoo respecté wul peut-être que tamit citoyen yi am nañ ci part de responsabilité. Hmm. société civile amul. parce que société civile aussi daan na nekk intermédiaire di former former les citoyens mais société civile bi fi am marché élection lay wër bu élection traite la si ñoom pour def ay supervision observation takk ay badge di di bëlde di def yëfi dof di wër di tracé après encaissé dem seen yoon boobu moo am ñoom buñ date élection amee rek jeex na seen yoon nekkatu ci donc bu amoon société civile boo xam ne dina former puisque parti politique yi amatul formation c' est des c' est des coalitions de circonstances parce que boo déggee Khalifa Sall ak njabootam ak ñoom dañ lay wax ñun parti socialiste lañ ne kenn mënuñu faa dàq ngay dégg mais ñoom bi ñu bëggee dàq soo am dañ ko commencé naan ko AFP nga nekk moo jiite jigéenu AFP. naan la moo jiite jigéen te moom AFP ga mu nekk bi ñu bëggee troxal xalifa Sall ci Benno Siggil Sénégal Benno Bokk Yaakaar ne ko boo nangul boo joxul boo ñu joxul mairie bi dañu lay faagaagal si la ne justice mooy Khalifa Sall mi géré ba am bilan Dakar waaye lay àndal. comme ni ko Cheikh Gueye defee nekk LD comme ni ko keneen defee nekk comme ñoom ni ñu ko defee ne PS kenn mënu leen fa génne mais yooyu ali bi ñu jëloon jox ko seen ñooñu politique ak seen njabootu politique ñu koy sànni askan wi di ko manipuler askan wi te nga xam ne Khalifa Sall quoi qu'on puisse dire man li taxoon ma jàppale ko. Hmm. bi ko jàppee mooy 2009 dafa yegg si à la mairie ne nañu teg suñu coloration politique yëpp ci biti hmm. nekk beer boo xam ne dafa boole ñëpp. def lee à l'école des programmes spéciaux xoolatu ci leen 2014 mu ne bu ngeen ma falul askan nañ ma fal taxawu Dakar bi mu jëlee taxaw Dakar dafa def lépp mu jaar yoon bourse yi amul xaaj ak seen poste yi amul xaaj ak seen donc moom moo fi njëkk présenté looloo taxoon ñu jàppale ko biñ ko faagaagalee ñun société civile ñu ne kii kat day defar dañ ko bëgg a éliminer rek pour des ambitions politiques loolu moo indi woon loolu donc du woon ñoom seeni militant politique ñoo leen fa teg parce que seeni militant politique boo leen xoolee matuñu dara. kon dafa soppeeku ci a wax. non sax ñoom ànd ak ñoom Ousmane Sonko ñooñu dama wax rek ne attitude leader yi la xam nga dama ko wax à Thiès ma ne leen Talla Sylla bu ko waa Thiès ne euh, dafa ñoo ko yóbbaale waxuñu dëgg maa doon commissaire politique bi parce que bi ma demee foofu def commissaire politique sama yi ma jox Idrissa dama ko waxoon ne ni il faut que ñu am nit ku mën a ñëw porter la ville parce que jatara mi fi nekkoon ni mu géré waa réew mi ñoo ko accusé malversation ak leneen donc tes maire tes maire yi képp koo ci reconduiraat da ngay perte de bonne foi parce que man amul fii ki fi nekk yonent bi la ak Seydina Mohamed Cheikh Ahmed Tidiane Chérif fii ñoom ñu fi donc ñoom jara jaraluñ ma loolu taalibe la ma wax ko ko fidèlement bi ma pare mu jox ma pouvoir ñu organiser installé leen Talla la bi muy ñëw valeur ajouté la bu contribuer ci élection no comprendre taxawaayam léegi. no mais xam nga mais Idi la ci biir. mu mel oh, dafa xeetu li sànq nii. gars yi dañuy xëy moom laa la wax ne la xam nga xam nga à Thiès. Macky Sall ak Idrissa xeex nañu xañ Thiès pendant combien de développement ah. ñu jiboowaat Talla la ma fa desoon continuer di liggéey ak état bi pour bañ Thiès bloqué wu ñu sacrifier Talla la dañ daan bloqué ay conseil municipal am hmm. bi ñu xuloowee bi ñu jiboowee ci diggante bi ñoom ñëpp nekk benn dañu bàyyi conseil municipal muy fonctionné ñañu faloon ñu ne bi yoon Macky Sall mooy tànn ca palais ba ci koo xam ne ni jël na loi sax pour tas acte trois pour ñu bañ a gagné mairie hmm. bloqué chantier yi bloqué projet yi moom laa lay wax ne ni jàngat la ci leader yi ak citoyen yi ci nu ñuy doxee Khalifa Sall mi soo am waati ni géré hmm. def bonne gouvernance def lépp ñu ne de Dakar ku ko mën ngaa dem élection mën ngaa gagner présidentielle mën na la def appareil politique nga ne naa sacrifier femme bi doon liggéey parce que xëy na bu amul ambition présidentielle. donc loolu laa lay wax ci attitude yi. président Macky Sall mii jël Cheikh Ba. mu yor suñu un milliard. CDC hmm. mu teg ko foofu. ne ko kaay nga nekk tête de liste Médina kan moo ñu wax ndax list fantôme yooyu yëpp cotisé nañu. ah oui parce que Cheikh Ba mi nekk foofu ku ñu wóor ku fa nekk dafa am société civile buy siégé ci biir kii bi pour contrôler euh, affaire yi la mu wax noonu mun nañu xëy mais ña mais déedéet xam nga dañuy déposé quinze mille trente millions ku mu ci favorable kan moo ko mën a vérifier Cheikh Ba est juge et partie. kon da jox dëgg Bamba Fall mi ne sax moom taxut ñuy wax mais wax joojooy dëgg xam nga boo nee Bamba Fall sax ñit ñi mën nañ ne Bamba Fall la mu ko wax moo tax mais dëgg moom su génnee ci gémmiñ gu mu gu mu jógee rek danga koy nangu mooy Cheikh Ba li mu yor CDC ba ñu xamee ne dañ koy investir dafay dem élection waru ko woon dem wala ñu changer. organisation ces composantes yi nga xam mon objectif c'était casser raw gàddu bi mu gaaw pour que président remporte yi ah ñi def quinze parce que am na ñu def quinze millions yoo xam ne ni amuñu sax ñu ngi leen di toppee bor donc am ñoo ils sont incapables de produire sax des listes tey Cheikh Ba kii nu di ñii daf leen valider rek ñii joxe xaalis d'accord bëgg naa avant ñoo dugg nañ Thiès génnaat fa dama bëgg ñu desaat Ndakaaru ci ñi koy xëccoo laataa ñoo dugg Matam ak euh, fi nga xam mooy Medina Yoro Fula ndax euh, liir nga ko ci presse bi comme ñun ñëpp la fa xew waaye aussi tamit CNRA euh, mise en garde bi mu def suñuy ñooñ yi nga xam dañuy politique te nekk ay taskatu xibaar bëgg naa aussi am ci sa lecture Pape Diop Doudou Wade Barthélémy Dias Soham El Wardini ak ñeneen ñu ma tudd ci Ndakaaru noo koy jàngatee. xam nga moom moom moom lay wax ne nii foo gis ñëpp di xëccoo lem a nga fa. lem suukar fa nekk. mais su fekkente ne rek pour askan wi la woon wala pour programme pour ñu liggéey du du mel ni. ah oui non parce que boobaa bu amee bilan ñëpp dañuy ne Dakar de pour suñu Dakar la. mais jamono ji Dakar képp ku jàpp ni téyewoo ko ci loxo mënoo ko gérer politique moo waral ñoom ñëpp ñuy daw di dem mais daf ci am ñoom waruñu woon laaj. ku mel ni Pape Diop. ah dafa am ñoo xam ni waroon nañ jombale seen bopp laaj parce que gere woon nañu. Doudou Wade. Doudou ku mel ni Doudou Wade ñoom bi Pape Diop di géré am résultat ñoom ñoo indi Karim Wade yàq liggéey bi tey ñoom ñoo àndoon ñoom demandoo législatif doon ay député bokk benn kuréel. mu leer leen ni chiffre bii ñuy dem di jëli ville de Dakar bu raw gàddu la bu ñu deful benn bloc pour dem jëli ji ko mënuñu koo jëli bu ñu def bu ñu bu ñu tasee rek c'est parce que cet objectif mooy du man mais bu mu doon kenn. mooy taxawaayu. mooy taxawaayu parti politique Sénégal yi. donc loolu nga ciy jàngat. Hmm. mais xam nga tey li ma mën a gëm moo doon ñoom ñuy dem ko parce que il faut Sénégal dem ba yegg foofu. mooy bi Khalifa Sall nekkee maire de la ville de Dakar au Benno Siggil Sénégal 2009 dama lay jox exemple boobu tout temps hmm. mooy gestion ñëpp ko rafetlu bi ko Benno Bokk Yaakaar ni xeex dafa ne maa ngi dem jàkkaarloog Dakar waay ak samay résultat dañ ko fal fépp ba ñi ñi nga xam ne dañoo am taxaw Dakar ñoom Jean Baptiste ñoom Alindo ñëpp a daw làqatu ci couleur taxaw Dakar hmm. boobu ko àndul ak boobu population bi ñàkk a comprendre mooy résultat Khalifa moo falaale ñooñu ñëpp ñu nekkaale ay maire donc pour gestion boobu mu defoon résultat wu gestion boobu moo indi ba indi ma ci biir combat wu pour man bu résultat amee soxlawul ñoom parti yi ñu naan dañuy xëccoo. dañu war a reconduire dañu war a reconduire parce que Dakar waay pour seen seen développement seen état bi tamit pour montrer pour la wan pour wan ko ni ni gestion dafa bëgg politique. c'est-à-dire jël ville de Dakar pour teg fa clientèle politique jël ville de Dakar def ay moyens moyens ya nekk mu utiliser ko politiquement mais ville de boo xam ne ki ko yor mu ngi koy defar. Diouf Abdoulaye Diouf Sarr mii dem di laaji ji ville de Dakar mais moo participé ci coup d'état bi daaneel Khalifa Sall te conseil municipal bu musul part assister conseil municipal selon les textes dañ ko war a dàq donc Abdoulaye Diouf Sarr boobu moo participé ci loo lu dul jour bi ñuy def élection yi. lu dul jour bi ñuy def élection yi donc kooku tey bu ñëwee ne la dama soxla ville de Dakar mooy non pouvoir bi moo bëgg mu récupérer Dakar téye ko ci loxo. mais intéressé wu ko. mais intéressé wu ko parce que pouvoir bi aussi ko bu bu nee xam nga Mame Mbaye Niang ñun ñoo ko may li tax muy wax. mooy li ma wax moo si ne xam nga Mame waroon na tal leneen lu dul dem di laaj ville de Dakar. waaw mooy waroon na tal moom ci boppam fi mu jot a jaar yëpp secteurs yi mu jot a jaar yëpp mooy jeunesse nga xam ni concert yu mag lañ defal jour jamono yooyu ñu koy jiiñ lu ne muy def ay cons di fayeeku lu bari gisuñu dara lu mu def côté boobu ci jeunesse recruter xaw ma ñaata chargé de mission Prodac bi ñëw ci télé yi la ñu yem ak ci rajo yi procès télé ak la ñu yem ba tey demul ci yoon ki ko njëkk a yóbbu dafa génn attaqué ko. mu pare ñëw di ñu laaj ville de Dakar donc moom laay wax ni ñu seetaat suñu bopp xam nga jeune bu mel ni Mambay Ndiaye bu meloon ni Thierno Alassane Sall Mambay Niang bu meloon ni Thierno Alassane Sall nga xam ne ingénieur jàng euh, fële ba mu pare dafa dellu ASECNA liggéey mais Mambay ba mu jógee fee mënatul dem liggéey mu ngi chômer parce que nekk na yoon bu mu dañu war a jàngalaat suñu xale yi. justement ci euh, côté yar boobu mu buggoon ñu ñëw ci actualité bi comme ni ma ko waxee sànq fële ca euh, la xew ci Matam ak ca Medina Yoro Fula noo ko jàngatee waaw ni ma ko jàngatee mooy du du du lu ma bett te début bi rek ba keroog ñuy dem ci élection yi dinañu gis yu gën a catastrophe yooyu. ah oui boobu mooy du sax ñu gis ci biir en cours d' élection tëdd yu bàyyi wala yu ñu récupérer dina am parce que li ma la wax moo si ne mooy amatuñu ay parti politique euh, ay gang la am ay ay ay ay association malfaiteur ay euh, coalition de circonstance ay ñoo bokk ennemi coalition boo xam ni même ennemi la ñu donc loolu moo am mooy bu élection ñëwee rek context bu élection ñëwee rek parce que wax naa la ko fi benn journée la Boubacar Camara moo ne dañuy def des coalitions tactiques et stratégiques moom ku jub la boroom xam-xam bu baax la suma xarit la bu mu ko waxee lu dëggu la coalition stratégique et tactique ay loo fay jël loo yóbbaale ci coalition bi doo ko xool doo ko seetlu parce que fa nga xam ne amoo fa dara amoo fa partie bu fa liggéey ay cellules am ay cellules de base am ay section muy animation lii du la fa dal. Ah parce que leader bi nga xam ne ni ci say parti la bokk wala sa mouvement mu am fa ci parti bi nekk ci instance yi nekk ci section yi nekk ci coordination yi nekk ci lépp. di ñëw réunion di ñëw réunion bureau politique yow leader bi di ngeen am affinité yoo xam ne di nga ko wóolu. doo ko jox ba pare dina am formation bu nekk ci moom boo xam ne mais bu ñuy dem coalition. dama lay wax ne la ba bu ñuy dugg ci biir bureau kii bi bu ñuy yóbbu préfet liste yi du mat ñaata liste la ñu rejeté pour wax la liste yi sax bu ñu doon dem vérification dëggantaan ci suppléants yeeg ñi warul bokk am na ci ñoom seen chauffeur yi leen abal carte seen jànku kër yi euh, mécaniciens yi nekk ci koñ ba parce que defar naa liste 2009 liste bi parfois ñetti fan yi sax du pare da ngay wër di wëri ji ay ay nit yu la complété parce que état major parti politique yi mel ni pouvoir hmm. en général ñoom ñooy mën a matal mais ak parti yu mag mag mooy enjeu mooy c'est-à-dire loolu la ñuy wax naan les partis les formations politiques dafay am base day organisation day am ossature donc parti am ossature am organisation boo leen tapé xam nga ci commission yi dem di fa nga koy jëkk mesurer mooy commission yi dem super yi dem ci inscription électorale soo fa demee parti yi yuuxu fi yëpp kenn du am représentant si foofu processus bi foofu lay njëkk a biaisé mm. ndax normalement ñëpp a fa war a toog toog bu ñuy dem élection si pour siéger parti yoo xam ne kenn dangay ngay dem ci benn dëkk boo xam ne parti au pouvoir rek a fay am représentant parfois préfet bi mooy yeggali PV ak Sénat pour wax la amuñu état amuñu personnel politique donc médias yi la ñu transformé seen parti politique micro yi la ñu jël def ko seeni base donc pour wax la ne kenn yoratu ci am na sax ñu amatul siège parti politique. Hmm. am na ñu amatul bureau politique léegi bu élection di ñëw nag élection business la dafa ci am ñoo xam ni hmm. bu élection di jub si la ñuy monnaie def vente aux enchères def ko fonds de commerce. tey ki nga dem jëli yi mu mu mu xam ne moo lay représenté fii ñii xam ne ni coalition parce que Mahmoud Saleh dafa wax lu leer euh, Mahmoud Saleh. dafa wax lu leer nañ dafa yàq élection yi. xam nga li ñu ñi doon waxtaanee ci biir néegi moom la wax ci kaw mooy élection yi ñu jëm enjeu bi euh, mooy dëggantaan. mooy mooy mooy waaw moom si la ñuy nattee troisième mandat te comme Mahmoud Saleh mi ko wax benn liggéey rek lay liggéey mooy chemin ak damier ak nu ñuy yàqee nit nu ñuy éliminer nit loolu la jàng. parce que xeetu politique boobu dafa xeewi mais moom xeewiwul ci moom lay liggéey donc mooy trotskiste yeeg gauche yi moo tax parti yi am paawu gauche yooyu nañ leen yóbbu Touba tarbiye leen wala ñu yóbbu leen Tivaouane wala ñu yóbbu leen Laay wala Medina Baye tarbiye leen parce que système bi amatul ñu jeune tamit leaders yi leen topp aussi bàyyi leen ci seen biir ñu leen di réfléchiral ñu ngi leen di tardel parce que Sénégal du ay résistance du ay schéma du ay yooyu mm. donc fi ñu jëm fii ci Sénégal communauté yi sax ñoo gën a ñoo a taxaw association caricature yi sax leen gën a liggéey hmm. mouvement volontaire yi sax leen gën a liggéey këru diine yi li ñuy taxaw sax moo leen gën a liggéey donc pour wax la ni loolu moo indi lii li am ma euh, fële te pareeguñu état major politique moo tax Mahmoud Saleh bi mu waxee loolu la yàq élection yi si lañ gëm ni président de la république am na lu mu namm ci élection yi. moo tax mu sonn ci. moo tax mu sonn ci te Mahmoud Saleh mi wax loolu kenn waxu ko dara kenn sanctionné wu ko te dañ daan wax ku wax lu jëm ci troisième mandat yi dañ la ciy génne. Mm. te ñu bàyyi ko muy gundaanaat di def lu ko neex. donc moo lay wan ne ni ba léegi ñu mm. am na ñuy demaat ci biir kër opposition bi dem di récupérer gars yi donc bu ñuy def liste yoom dañ lay wooy di la wëri kaay leen amuñu fi représentant doo ñu wëral représentant mm. bu ñuy représenté foofu moo indi lii. ak tamit ñi nga xam ne forclusion yi mooy ñi nga xam ne xamuñu mosuñu dem élection locale amuñu expérience ndax dañ ko war a di jàng comme nee naa la société civile bi fi nekk amatul société civile donc société ay forum civil la fi nekk affaire pêche bi nga xam ne ni international wala affaire union européenne USAID yeneen société civile yi war a jàppale jigéen ñi ñoom ña nga ci avortement euh, médicalisé di liggéeyal tubaab ya donc yooyu fi am bi ci topp beneen société civile bi wër élection yeneen société civile yi xaar ARMP pour siéger fa yi xaar institution yi ak société civile yëpp ci agenda extérieur la ñu nekk. mais dans les normes. am na waa COSC am na COSC M23 moom dafa tum ranke. non waxuma COSC M23 COSC. le collectif des organisations pour les élections. mu Ndiaye si si ñoom bokkoon. waaw déggul mu Ndiaye mooy le ah. grand businessman moom élection koy enrichir moom élection rek. may non élection rek parce que parce que fa la affaire nekk parce que dama gëmul jour élection bu jotee nga dajale ñii ñi ci benn salle yóbbu leen. veille électorale non pas dañuy dem sa avant dem formation ne élu yi nii la ñuy téyeeg ni la ñuy yoree budget. Hmm. def ay def ay publi reportage. Hmm. dem fay mais ànd ak nag seen dem ci télé bi euh, nga ni l'état non non non xam nga dans les normes moo tax ma wax moo ministre de l'intérieur. di ko ci woo chaque jour ak le président de la république ñu def assise de la citoyenneté active ñu trouver charte charte société civile ak leur financement hmm. parce que bu la USAID e ak OCDE ak ay nga xam ne ay multinationaux yom xamoo fu ñu jëlee seen xaalis ñooy ñëw di financer ñooñu ñu yor ay million ay voire des milliards ah, yor lañ nekk yor non fii lañ implanté wu def contrôle bi wala moom moo ko war a def waaw mais bien souhaité état du Sénégal utal société civile am charte utal leen financement encadré leen ñoom ñu yor formation citoyenne militaire nit ñi dem ci parti yi di forme dem ci communauté religieuse yi di former dem ci famille organisation di former Sénat da koy def amul njëriñ dé Sénat xam nga lu tax ma amul njëriñ Sénat amul njëriñ Sénat lekkukaay xaalis la ah si parce que Sénat da ngay am siège ñu koy fay dim sena jël ko mu daw bàyyi la fa Sénat xam nga lu fa am ñuy gàddu feuille di wax rek président SEDA yeeg affaire bu paree seen bureau yi amuñu benn njëriñ. parce que mënuñu acté ci élection lenn. Hmm. mënuñu posé benn acte. Hmm. parti politique li leen ñoo ko teg parce que dialogue ba mu amee processus bi am bu ñu réglé woon ni ñuy defee élection encadré ko hmm. suffrage direct kan moo war nekk élu les statuts nan la ñuy falee élu yi leen di tànnee nan la ñuy encadré budget bi maire bi nan lañ koy protégé bu ñëwee fonction publique locale ba nga xam ne doo am clientèle buy wër di saaga ñi bu ko defee da ngay mujj nekk suiveur. d'accord suñu suñu mbokk nag CNRA euh, ak la mu ci yëkkati euh, pour man waruñu woon xaar. Hmm. et que aussi kañ lañ koy dis lay disparaître. parce que tamit CNRA amatul parce que mënoo rek ay élection nga leen di dégg. wala film ñu attaqué benn film ak affaire yeeg yooyu parce que bu dee conseil kii de régulation la ñëpp di fa siégé maa ngi dégg ñu naan am na arca buy ñëw parce que li xew ci réseaux sociaux yooyu loolu lu ñu war a teel a gaaw la hmm. pour que ñoom ñu mën a xool parce que CNRA moom day jël décision boo xam ne ni après mooy ñëw di ñu expliquer ci loi la ko teg wala ci yoon donc CNRA dañ ko war a xoolaat dissoudre ko hmm. parce que tamit pour man sax Babacar pour crédibilité ak fi mu jaar ci presse yëpp hmm. dafa war a dellowaat président de la république CNRA ne ko nañu ko tas ñu ñu organiser waat ko bu ko defee arca ñëwaat lépp ñëw ñëpp en fa représentant bu ko defee bu jëlee décision ñëpp dinañ xam ne ni lii ñi jël décision bi ñoo ko war a jël. waaye na loo xëy na Ahmed ay mais li mu wax non xam nga CNRA waruñu woon xaar man pour man patron de presse yi ku mel ni su nduur ku mel ni euh, ñoo respecté wul presse Sénégal. Hmm. parce que boo demee foofu da nga fekk ay directeur programme yoom seen i rakk la ñu ci école yéeg lu toll ni programme télévision nga jox ko nit ndax parce que sa rakk la. nga jox ko nit parce que sa parce que sa rakk la loolu laay tooñee buuba ne ko bu dul woon Youssou Ndour doo nekk directeur programme moom moom moom sama copain. parce que loolu nga dem ci beneen télé doom ja doom ju góor ja wala kii ba moo yor moom la ñuy def directeur programme. donc te programme télévision c'est sacré. donc loolu mooy wa dem yenn kër yi tamit ñu jël pas retraité yu ta yu yàgg yu dem war a dem encadré booy yi nga ñëw genre deux ay paa ya fa nekk doyen yu yàgg. donc ñu waroon ñoom pousse jox booy encadré leen ñooy toogaat aka appareil kii donc pour man ku mel ni Bougane bi nga xam ne patron de presse la nekk ci milieu bi lim Ahmed Aïdara doon def daf ko neex. waaw ah. xam nga ku mel ni Pape ale mënuloo ko dara parce que sitam rek la yor. site boo xam ne soxlawul publicité soxlawul dara day porter ay dossier jàmbur rek ñu koy gérer muy wax ku bëgg sa kii ko ku mel ni am euh, Yérim Seck du ma nekk businessman journaliste soo waxee mu ne man soxlawuma dara parce que euh, am na benn sitam am na feneen fu mu participer coow lu am mu dugg ci wax ci wax ju rëy après gars woo ko consulté mu def ci consultance ba pare nit ñi di leen bàyyi xel ñu mel ni ñoo ñu war a analyser te yow nga dàq leen jàng war leen mën a dàq leneen ak leneen te boo waxee ñu leen demoo Jeune Afrique journal yoo xam ne espion lañ xamuñu dëkk bu tas ñoo ko tas ci àdduna bi donc ñoo ñoo fi nekk donc pour man patron de presse yooyu li leen Babacar doon wax. wala directeur programme yi wala ñiy chargé de programme ci biir télé yooyu parce que am na damay gis muy def loolu ba pare ñoom biraayam ñi ne di reetaan métier bi ñi koy def gis nga am mbir boo ci nekkee yow yaay gëm métier bi nga bëgg ko mais damaa ragal ni gars yi dañu matalul diplôme wala gëmuñu seen bopp ba nga xam ne ni gëmuñu ay fii bu amul lu baax ma démissionné dem parce que loolu laa ragal dangay gis ku jàng am xam-xam ñoom ñëpp ay ñoom Pa Assane Seck mais toog di wax yoo xam ne en tant que journaliste wala keneen ñëw fa di wax leneen nga nga toog di ko seetaan amet di def yooyu ñu mujj ko def jeu muy reetaan ak yooyu bu defee revue de presse xas-xas ku mu bëgg attaque attaque candidat bu de def ko fa kii ñoom la si ñu bàyyi doy baan mu toog foofu kuy xaritam mu defal lay sàmbay mbayaan ci ci ci ci biir kii ba kuy kii wam ñu defal ko parfois ñu bàyyi Pape Cheikh Diallo ñu élire ay candidat fële fële Umaro 2S ñu fay nekk di def ay propagande pour man patron de presse yi ci boppam la mais comme patron de presse yi xamoo seen presse yi ñu ko monté ka fay actionnaire ku fa dugal homme politique ndax état ak yooyu doo ko xam. moo tax journaliste war a teey war a dal su ma gisee ñuy emporté wu ci o patron de presse parce que bu ñuy dem di négocier ji marché publicité yi ak bu ñuy dem di négocier ji subvention ba pare CDS saxaw ma c'est li ñu def d'accordu ma ci su dee su dee dañuy li dafa am patron presse yu dul fay impôt te seen personnel bi aussi duñu leen fay dans dafa am patron de presse yoo xam bu ñu leen di defal médiation parce que dañu recruter ay nit di leen fay normalement dans leur ñu mën leen ne ah yéen a ngi contribuer kat ci emploi yeeg yooyu donc mën nañ leen wàññil leen mais bu dee dañ leen di wàññil impôts yi fayu ñu impôts yi patron de jël ko di ko campagne wala ñu jël ko di enrichir seen doom yi wala ñu jël ko di tëddi Dubaï wala ñu jël ko di def lu leen neex donc pour man entreprise yu mag yi nekk fii nga xam ne ñu ngi nekk duñu télé te ñu ngi sonn ci impôt bi te ñu ngi recruter ñu ngi gérer leneen donc nga permettre ale ma ma wax benn message te yow ma la koy ñaan nga dem def fa investigation parce que journaliste bu gëm nga bu vertueux nga mooy li xew ci stade bi ñuy tabax stade du Sénégal turc yaa ngi fa téye employé def leen ay esclaves ba pare en complicité avec les entreprises du Sénégal dégguñu làkk bi ñu ngi leen di dàq di dagg seen contrat yi di wàññi seen xaalis yi di làkkanteeg ñoom boo waxee ñoom boo leen bu la saagaa boo leen dóoree ñu génnee la ci biti te amul kenn ku ko protéger moment bi gis stade bi pour campagne ko rek la ñu gis mais gisuñu les conditions de travail yi fa nekk inspecteur du travail ñoom ñoo ne bari wuñu xaw ma ñaata lañu mais état du Sénégal na ak sous-traitant yi nga xam ne dañuy jàpp nit ñi di leen ronkat ronkat ronkat donc jeunes yooyu tey bàyyi lépp dem di manœuvrer wu di maçon wu yow jàngaloo say doom ba ñu nekk ay ingénieur ba ay turc ñooyu mu mën a defar loolu say doom bu ñu jëlee seen doole dem di ko utiliser foofu nañ leen protéger seen i droit ñu jàpp leen fa di leen malmener di leen dàq génnee comme siphon bu ñu la waree fay wàññi xaalis bi sous Sénégal yi jël ko ñu ñuy wan ay photo stade rek alors que am na ñuy dee foofu turki yi ñëw te ñeme wuñ ko def ci seen dëkk yi dugg seen dëkk yi rek c'est autre chose bëgg nañu stade bu ñu amoon fulla sax ñoo koy tabaxal suñu bopp ci suñu université rek suñuy polytechnicien mais comme ñu ngi ñëw di ñu ko tabaxal ba tax na dañ leen di ñu ñëw di ñu def lu leen neex su état respecté dëkkam nag respecté ay citoyen na dem toppatoo li xew foofu euh, lu ñaaw la mel damay fàttali sax cas bu amoon ak la xew ICS noonu nga xam ne waaje dafa jël xaalis ñëw di may si première dame ci ci kii bi directeur ICS nan la mën a rombee Mboro amul hôpital Tivaouane amul hôpital leneen am nga ñëw naan da jox première dame ay don yooyu genre directeur yooyu moo tax ñu waroon ñëwaat ci assises yi dem directeur appel à candidature. ñu ngi lay gërëm Abou <laughs> Diallo ci COS M23 bàyyi la mooy di la gërëm yow it parce que ñun bu ñu ñemee des si di wax ba tey bokk na ci journaliste yu mel ni yow ci ci ci ci ñëw ci sa plateau parce que dëgg ngay wax te débat bi dafay nekk débat niveau. donc di témoigner ci loolu parce que heure bi waroon na la mën a fekk nga yor ay oto ak ay yor lépp mais métier bi. boo ko gëmee en général da nga ciy sonn di am kontaan trop ci site Equivox kii bi seen Equivox TV TV di mm. ñaan mu dem ba nekk te leen wax nag ngeen topp charte yi mm. bañ a topp people bi bañ a topp merci bañ di wane loo xam ne day am lu muy yàq suñu éducation parce que sites yi aussi ak militant u parti politique yàq nañu réseaux sociaux yi mm. ñu ngi ak wax a bis ci yooyu ñooñu yàq nañu réseaux sociaux yi ñu ngi ñu ngi indi instabilité ngeen jàppale ñu ci éducation bi bien merci beaucoup Abou ñu koy gërëm di ko sant beneen numéro seen émission c'est